kon nag nit ñi nga xam ne ñu ngi ñuy tudd di tudd Serigne Touba ci ci ci ñi nga xam ne seen maam yi Serigne Touba lañ àndaloon nan gën a jóg ngir ñagaat yoon wi nan gën a jóg ngir ñagaat yoon wi bu baax ndax yoonu murit fii mu toll laaj nañu gën koo ñagaat ki ci ci anam yëpp ndax bu yàqoo ñun la yàqul mënta yàqu sax nag waaye nag lu ci yàqu ci ñun ñoo ci yàqoo suñ jëmmi bopp si nga bar mii toog day bokku ci kilifa yi nga xamante ne nii dañ leen di xeebe yoonu murit bokku ci de ndax mës fëgg benn bureau bureau ministre mës ta fëgg benn bureau DC mës ta fëgg benn bureau koo xamante ni ku ñu tudd tudd ndomo tànk la xanaa kay ñoom ñooy wëlbati ku di fëgg ay bunta muy ta ñoom ñooy wëlbati ku di fëgg ay bunta muy ta bonul nag bonalu ma leen fëgg seen i buntit bonalu ma leen ca ña koy def waaye nag nit ku xam li nga li nga doon xam ki nga doon diñ ca la nga nekk am na loo xam ne doo ko def kon nag ñi nga xam ne ñu ngi leen di tudd tudd Sëriñ tubaa te Sëriñ tubaa teral leen ci teraangam leen teral nañ gën góorgóorlu bu baax a baax sàmm gën a sàmmaat yoon wi li li li li ñu sëriñ bi li ñu sëriñ bi sa li ñu sëriñ bi sant nañ ko gën a xam bu baax gën ca teg suñu tànk te gën a te gën a góorgóorlu bu baax a baax sëriñ bay jaxate kat am na lu mu waxoon àdduna yàqu na kat te kilifa yee ko yàq kilifa yee ko yàq kat ndax kilifa yee fii dox di dox di fo loolee nag lu lu mat a bàyyi xel la ka ko waxoon du jaayil ka ko waxoon itam ku mat ku xàmmee la ku ràññee la ka ko waxoon itam ku Serigne Touba gërëm la ka ko waxoon itam ku liggéeyal Serigne Touba la te la taxoon mu wax ko xam na ko kon nag li nga fi fi jamono toll tey nga xam ne ñu ngi naan ci àqiru samaan la ñu nekk laaj na bu baax kilifa yi gën a jógaat taxaw taxaw takku jaayante ngir lan ngir gën a ñagaat yoon bu baax a baax a baax gën a xam fi ñu teg suñu tànk ngir taalibe yi gën a xam fu ñu tegtaloo taalibe yi kat bëgg na noo jub bëgg na noo baax bëgg na noo def lu baax bëgg nañ ko awale ci lu baax waaye nag jamono bi day mel ni soo jógee ngir jëm ci lu baax li ci ëpp ci kilifa yi nga koy jëflanteel ñoom ñooy jóg nekk safaan ba ba kenn xamatu tey foo teg sa tànk kon loolu nag bokk na ci li nga xam ne war nañ ci gën a góorgóorlu bu baax a baax mooy mooy mooy loolu kilifa yi kenn ku nekk bàyyi ci bàyyi ci sa xel bu baax lii ñuy wax nag yàlla sama borom dogal ne ba nga xam ne jubluwuñu ci jubluwuñu ci mukk ci àdduna ak daggi kenn waaye soññante la te sañ na maa soññanteeg sama mbokki taalibe yi sañ na maa soññanteeg sama mbokki taalibe yi kon nañ leen ci gën a bàyyi xel bu baax fii jamono teel toll képp ku gis dëgg jàkkaarloog dëgg gis ko nii muy dem nga jël ab safaan ba tekki sa tànk di jàppale safaan ba xam nga ne ba sëñ tubaa ñu ñëwaatoon du wàcc ci yow ndax sëñ tubaa kat président de la république ba mu gënee ba mu gënee fort gouverneur gën a fort li ñuy wax ndombok tànk ci ci wàllu tubaab lépp gën a foor booba la sëñ tubaa waxoon ne xusóor yi xalaat wala ahlu anni tafaruxat boobe la ko sëñ tubaa waxoon jaayante ak ak rasulullahi alayhi salaam dem ci géej gi ay kërëm tas ay njabootam tasaaroo borom daaru muxti mi ñu doon tudd léegi nii ànd naak njabootu Sëñ Tuubaa gi fanaan képp sàq te dara waru lutoon ko lu may ñungal diine lislaam kon waruñoo dem ba jamono toll fii ñuy seetaan diine ji drapeau bi jalaal suuf te it ñu nga ñu ñu ngi ca bu baax a baax a baax ndax kilifa su demee su demee ba nga xam ne kili la kilifa ak àdduna ga bëgg kilifa ak diine ga gën ko koo bëgg loole suñ fa demee jamono yàqu na te Sëñ Tuubaa waxoon na ne ñii ñuy tudd di tudd ay buuri àdduna di leen tudd di tudd ay ndawi àdduna képp ku bokk ak ñoom seen tedd nga ji nga bokk ak ñoom seen tarax ngi seen toroxtaa ngi yomal yomal xiyaam waxuma ko sëñ Tuubaa ko wax waman yu saarikum huna fii srihim yàkkun bokk ak ñoom seen tedd nga ji nga bokk ak ñoom seen tarang seen toroxtaa ngi ëllëg yomal xiyaam te loolu kat lu mat a xam la ndax benn président bu fi ma a toog bay dem yóbbaale moom yóbbaale yóbbaale yóbbaale te amul kilifa yu mu yóbbaale moom amul sooy saay bay wàcc am na ñoo wàccaale ñoo xam ne taalibe yi leen kenn kenn bëggatul leen tudd sax di tudd kilifa boo bee nga ko defee Abdoulaye Wade bi fi jóge woon bi fi fiy jógee ancien ancien président lay dégg waaye ba tey ñamu bokkandooloon xalif général de Mouride Sëñ Saliou mi mu fi bokkandooloon nekk ba tey Sëñ Seex mais soo ko fekkee dayoo Sëñ Saliou nga koy jox dayoo Sëñ Saliou nga koy jox Sëñ Moustapha Saliou noonu mbooleem njabootug Sëriñ Saliou gi noonu ak mbooleem njabootug kilifa yi yoonu Mouride mm. kon nan wattandeku maanaam waxoon nañ ko wattandeku bu baax a baax moo di lan moo di sarax nit ki muy maanaam maanaam may nit ki muy dem yóbbaale ay ngéneelam yu yaatu muy dem yow ma ko saraxoon nga yow ma ko mayoon nga wëlbati ko dem ba toppaat ci ginnaawam yor ay ay ay di ko yalwaan loolu ku ne war na ko wattandiku te fii ñu toll nii yooyu moom yooyu moom mu ngi ciy tàbbi bu baax a baax te dara waralu ko lu may may lu may koom-koomam adduna bi te lu mu ci mën a doon ci adduna rek fi koy bàyyi amul benn njariñ fi lañ koy bàyyi lii sëñ man daat def nii am na kilifa yoo xam ne su lañ ko su lañ cee woon tey buñ fi ñu duñ fi ñëw dañ fi yeble te lan moo gën a risque adduna tant ab tant ci san sëñ Tuubaa amut te am na ñoo xam ne jombale nañ maanaam ëppale nañ ko seen bopp lii sëñ Omar def tey dagg ay itteem kilifa yii nga xam ne ñoo ànd ak moom kenn ku ne responsable ci la responsable nga ci la nga nekk sincère ba léegi ñu ngi ci kër ga toog tey bu leen neexoon ñu dem nekk ci leneen tey waroon na ko mën a ëppale seen bopp ci ci lépp waaye kenn mënta ëpp rëy bopp sëñ Tuubaa ndax ak koo fi man doon boo génnee àdduna jébbal nañ ko sëñ Tuubaa doo ngay dégg ak ak ak man a doon koo topp sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa tax nga di ko topp yoonu murit wii kenn yoru ci signature boo xam ne yaa ki dugal nit wala nga ko ciy génne sëñ Tuubaa yor signature ab boppam kenn ku nekk yaa def la tax nga bokk ci yoon wi yaa def la tax nga génn ci yoon wi soo cay génn nag doo ko yëg soo koy nekk mën nga ko yëg waaye soo cay génn doo ko yëg kon nag loolu a baax a baax gën ko teg suñu tànk bu baax a baax ci zahir ak ci xam ne nag ñoo toppan sëñ Tuubaa seen bàyyi seen bàyyi ak sëti sëñ Tuubaa yi nga xam ne ñoo fi nekk sëti sëñ Tuubaa yi seen bàyyi wàcc nañ mag ñi toppan sëñ Tuubaa itam seen bàyyi wàcc nañ ndax mel na sëñ Omar mii toog waajuram sëñ Abdou Salaam mës sa nangu ci àdduna ku jóg ruur jëm ci moom di jaar ci moom di ruur di jëm ci yoonu yoonu waa kër Sëñ Tuuba mës sa am kon kooka wàcc na waaye ñam doon ñam ñam ñam doon défendre défendre nañ seen bopp waaye nit nit ki bala nga koo mën a défendre daa défendre ab deram défendre boppam nit mënoo défendre ku défendre boppam nit mënta ne fàng ci biti nga toog fi nit ñi xam te moom loo xam ne warasu ko tudd nga toog fii nga di ko défendre lu kooku mënta ne day fekk nga défendre sa bopp ba noppi kon kilifa yi nañ gën a xam li ñu am téye li ñu li téye li ñu am xam ne adduna bii jël teg ko kanam téye ko maanaam di topp ay nit ci àdduna ba yàlla sa borom dogal ñu fàtte la ñu am ba tax na tey ko waxati lem lay wax leen la murit li ëpp ci murit yi léegi koo waxati lem lay wax mooy man de Sëñ Tuubaa rek laa gëm li ëpp ci tiigaani tey koo waxati mu ne man de Alaaji Maalik rek laa gëm maanaam nag nañ xam ne tubaab bii fi tubaab bii fi nekkoon ci ndakaaru gii nekk kenn ndar gee tubaab bi jóge fi ba léegi ay représentant tubaab bee fi toog ñoom ñu fi toog seen seen jotaayu maam yi seen maam yi lañ fi représenté suñ yaafusee ba tubaab bi représentant tubaab yi maanaam man seen maam seen maam yi wàcc nañ lan waroon a def def nañ ko wàcc wàccuñ seen yoon sëñ eh, um, um, um, njaarim gii jeexit boo fa fekk tey laale su ko tubaab beeg fa bàyyi woon kër sëñ tubaab gi nekk njaarim gii maanaam mboolem la fi tubaab bi bàyyi woon ko benn kër sëñ tubaab gi mën na ko jënd kon kon kon sëñ tubaab lam réussite na ki tubaab bi waaye nan nan wattante ko ba tubaab bi wëlbati ko waa réussitaat ci kawam lool lool luñ war a wattante ko la te mas namaa dégg sëñ Moussa Sall wax ne eh, dinañ dem ba jëmmi ba ba ba ba jëmmi jamono murid dëgg du jég daal di wax ne loolu ni ñu ko mën a ni ñu ko mën a man mën a mandargale mooy mu ja danañ dem ba jëmmi jamono julli dëgg du di garab tey jii ñun nit ñu ñuul ñi la ñu rasulullahi alayhi salaam jaral jëralu ko waa Makka jëralu ko waa Madina Pakistan boo demee Pakistan jëraluñ ko waa Makka jëraluñ ko waa Madina kon tey jii benn ki nit ak Dakar gu nekk Dakar guddoo fi màggee fi yaroo fi na muy waggare Touba di ko daw ñi dëkk biir Touba waggare wu ñoon Touba na muy sàmmee war may sàmmee wu ñoon Touba te lool loolu li ko waral mooy ak jege sëñ Mbay Jaxate waxoon na ne jegeeg dex am na loor am njariñ ke jegeeg dex du am ak ndox ak jege nit mën na cee jariñoo mën na cee yàqu kon nañ ko wattane ko bu baax loolu sëñ sëñ Abdou mas na koo wax mas naa toog bi muy wàtti génn àdduna ne xalaas li ma jaaxal dama ji géej goo xam ne dama fees dell bay bay tuuru ñi ma dëkkal di dee ko mar àllar si di ma xaw di naan di yóbbu te loolu ni mu ko dale na dal kilifa yëpp tubaa geeñ nekk tey lépp loo xamante ne tey benn xale bu góor bu am 18 ans boo xam ne mën nga koo toogloo tey ci daayira ci biir Touba gi amatul amatul ay màggat nga fay fekk wala ay ay ay màggati jigéen wala ay xale yu ndaw yoo xam ne sax dana tollaguñ ci tollaguñ ci njàng bo da da eh, eh, ndakaaru gi nga nekk tey bëri na ko dimanche samedi yi jot wala dimanche yi jot nga gis ku bàyyi ab liggéeyam bàyyi loo xam ne nekk ci kuréel boo demoon ca Touba Gueye tey nit ñi jëral leen ko lu lu ko waral lu may ak yaafus ak nekk tàmm mbir jege mbir ba nga xamante mbir ma tegatoo ko fa nga ko war a teg ku jógate ci àdduna tey yaa ngi jóg di door ci sëriñ bi di door ci sëriñ bi te sëñ tubaa kenn du ko dóore yaay door ba ba dóor ba dóor ya daal ci sa kaw waaye sëñ tubaa kenn du ko dóore ndax sëñ tubaa bu muy liggéey kenn koo xamante ne ni bam naa bam naa bam naa sami allahu liman hamida daawutul déggu ne ko rabbana wa lakal hamd kii wax na ko léegi am na fu mu toog ci ci tukki bi defe naa su ma jumul ju jumul Libreville la ba mu toogee fi mu fi ju ñëwoon fi moom di jàng lam yabdu lam yabdu misal Mustafa Muhammadi siran wa jaharal fil bara yasamadi bam daan madal lanaa lislama wal kufra maha wa bi nasiati li kulli samaha yaqudu bi zahiri wal batini man attao lillahi fi kulli saman gitmatahu anil wuyo ba sabat wal istiqamatan wa safa wahbat lii baa ne ko Mustafa raïsa li kulli man xat fajuloo xat fajuloo roxosa ba egg ci huwa nabiyu wa rasulu wal qalil wa huwa al imamu wa huwa wa wal abi wal imaamu ngeen wa dalil ja ba mu ci egg sëñ Tuubaa jugal boppam ne wa dalil ngir ngir tegtaloo ko rasulullah alayhi salaam mi nga xam ne mooy kii kon nit ki nit ki nga xamante ne nii ba muy jug di liggéey ngir loolu ken fekku ko ca loolu kon nag kenn ku nekk war naa bàyyi xel gi mi sëñ Tuubaa jooju te bañ koo fayee ñi ñii nga xam ne ñoom lañu tudd di tudd sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa aw sant boolewu ci ken génnewu ci kenn sëñ tubaa pas-pas yi pas-pas yi kii boole nit ñi ak dayoo ak liggéeyal ko waaye sëñ tubaa waxoon na ne jege yu sori dafa am sori gi jege am ki nekk ci àll ba di jëfe ndigalam yi bàyyi tereem yi sëriñ tubaa jaral ko lu ne ku mel ni par exemple sëñ Mamour mi yenn saa yi ma toog di ko seetaan ci télé ci télé soo muy jooy ngir jëmmi sëñ wallahi dama koy ñee ndax xam nga lu tax mooy jëmmi génne say ronkoñ ngir jëmmi sëñ tubaa doo ko tax loolu sëriñ Fallu am na lu mu ci lu wér sëñ Abdourahmane Mbacke moom sëñ Abdoul Khoudous ku ne xam na ne ku ko xam-xam ko ci sarixatu ak àqiqatu te wax na ne génnal say rongoñ ngir gimir su sëñ Touba ngir gimir sëñ Touba loolu dafa bokk ci farataay yoon wi kon kon loolu te am na ñuy tudd ci sëñ Touba yoo xam ne nii boo demoon ci biir barab sëñ Touba wàcce nañ ci biir sax jarul lañ génne seen rongoñ te loolu li ko waral mooy dañ maanaam jaasi ju amul jaasi joo xam ne nii mbaram kese fa nekkati la benn jaasi nekk mbaram kese lañ aw mboxos nag mënta def dara moo tax ngay gis fii kilifa nit jàdd ko wax ko lu mu ko war a wax ren ba di wen dara du ko dal xam ga lu ko waral am mboq sa fani amatul lum lum lum lum lum yàqe kenn amatul lum arage kenn loolu loolu loolu loolu loolu loolu fa nekkati lenn lenn dong la lenn dong la lenn dong la ci yaakaar mooy dem cib sëriñ naa ko liggéeyal ma diw defal ma nangam diw loolu képp loolu loolu képp la ci yaakaar kon nag jëmmi sëriñ Tuubaa ji du lu ñuy foyee ne leen ko gën a jàpp bu baax gën ko waggar bu baax ci zahir ak ci baatin sëriñ Manda ak sëriñ Mbengue la sant moo ngi lay gërëm fama bi gi samay kàddu nag moo di la la la la la la nga xam ne moom la moom la euh, euh, zahir ba waxoon rek moo di jamono bii ñu toll itam ñi nga xam ne dañoo jóg ngir soog yoonu murit nanu tey te def ndànk ndax euh, ku ci jóg léegi di woote wax sunna wu di woote wu lu ne ci àdduna te fekk ne yooyu moom ci yoonu murit la dëppe ki yoonu murit la dëppe tabaxu nga def raay ngir tabax jumaa ci yoonu murit la ma sa amee ci àdduna moo tax ñun kenn waruñu defal dara ba bam réy ci ñun ba ñuy saalit ngir ngir bay fàtte gi mi Sëriñ Tuubaa ji yenn yi nga gis nit e, e, état donc def dara Tuubaa gii day mel ni day mel ni suñ koy def day mel dañuy fàtte Sëriñ Tuubaa te fekk ne maanaam jëmmi Sëriñ Mudu Moustapha ba muy taxawal raay bi ngir ngir ngir ngir juma booba ana ñi fi nekkoon ana ñi fi nekkoon waaye tey par exemple tey autoroute Ila Touba bi donc bi ñu ko taxawalee bi ñu demee ba di ko intégré intégration bi dem dem nañ ba fàtte sax jëfi Sëñ Mudu Sawaja wala ñu dem ba fàtte maanaam ki ko fi def day mel da ëpp Sëñ Touba te ko ko fi def da ko def ngir ngir Sëñ Touba jëriñ a doon bu dul dara Touba ab dëkkub citoyen la boo xam ne ci ci ci Sénégal la bokk ne nga mën a defaree seen Dakaaru gi tey maa ngi toog di gis Dakaaru ngi ci def ay nangan ci ay milliards milliards yooyu ñu def Dakar googu nu ko raw la yële Touba yoon euh, euh, euh, màggal Touba li muy dugal ci li muy dugal ci bis ci ci ci Sénégal ci at mi maanaam benn benn wooteeb religieuse bu ñuy tudd ci ci ci Sénégal bu ko dugal amul. lan moo tax ñuy mën a fàtte Sëñ Touba di complexe lool complexe képp la nañ gën am li ñu am te ñoo doon li ñu am yoonu murit am na boroomi xam-xam am na boroomi pas-pas am na boroomi juddu nañ jëlaat suñu juddu téye ko diin ci li ñu am. te xam ne ñii nga xam ne ñoo ñoo ñoo ngi topp li ñu am wallahi asim lii sëñ taxa am bu ko Macky Sall amoon sëñ Muntaxa taxa gis Macky Sall lii lii lii lii lii lii Macky lii sëñ Muntaxa am su ko wala wala leen ci ñëboot sëñ Tuubaa gi am ko bu ko ñi ci àdduna yii ñiy tudd amoon ku bala ngeen a gis sonn ci gàttal dong amuñu ko waaye Portugal ba nekk ci ñoom bala ngeen a gis kenn xamul fooy jaar ci àdduna te saayir dong la fa nit ñi wuti fee nag baatin lañ fay wuti ku ñëw ci man ngir koom mi ak saayir si ma jox la loolu sama baatin jël si waaxiru daxwaana ani alhamdulillahi rabbil alamin